jërëjëf سلعين وإي سرفنا فنال العلم كالحرام وقم يلا لني ويلا ومتعمنا قلبا يوم يبنيني ينين ترحنا من دبو وجوده بين ومطعمة عيون بين يا نترى حنين a yoneen abaa lahab cala abaa lahab cala umu jamil cala abraha cala ni funny. wati yanani turgama kuma lawo bayau ba wati yanani turgama bayau ba wati yanani turgama yanni ne ga ba wati yanani turgama Ahmeti yanını kurban Ona albaçak yanını ci jëf jëf joo xamante ni dafay dëppoo ak ngërmande yàlla kon ñuy koy nuyu baax Adja Fat Ndiaye waaye nuyu Adja Aysata nuyu Adja Ndey Xadi Ñang nuyu soxna Juma Sow soxna nday Marem Fall soxna nday Marem Ndiaye nuyu leen nuyu soxna Ami Jaxate macha allah ziyaare leen ñoom ñëpp waaye ñaanal yàlla soxna Tabara Jóob yal na yàlla yeesal yërmandeem tabara yal na ko yàlla jéggal tabara yal na ko yàlla yërëm waaye daje bii yiw yu ci am yàlla bum ko ëmb ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ Babacar sëriñ Muniiroo ngi noonu yéen a ngi noonu gaa yaa ngi fi incha allahu rabbi ñoom ñëpp danañ ci barkeelu sëriñ Muniiru nee na nee na tey équipe boppam lay ñaan ñu may ko sëriñ Xaban Gueye mu sëriñ Touba ubbil ko man sax fan yi murit laa mag Mansour Gueye mais di ñëw waaw am na ku ma récupéré woon ba jël ma kon sëñ Xaban ñu jox ko mu niiru suñu noppee nag lépp luñ ciy dugal insha allahu rabbi ñu tofal ko ci Masala ngi fi Magueye ngi fi ñépp a ngi fi incha allah sëriñ Mbaye Dieye mu ngi fi keneen ak keneen ñu fi am cër ñëpp ngi fi incha allah danañu topp fooy route bi rek lu ci waaye am ci cër des na la ko jox incha ca na mu waree sëñ xaban bismillah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 انما هدي الله فاق كل من انما هدي الله فاق كل من انما هدي الله فاق كل من إن من حب الله فاق كل من أداه أيدي خالق الزمن رفعها فوق البيت منه بيتا تم المنام يا ربي سل بسلام تقبل بي عليه نعم الافضل بالآل والشعب إلى ماني يا من كفاني ترك سيدا بالآل بسوي الأمان يا من كفاني ندرك سيطاني بالله وسب بسوي الأمان يا من كفاني دلك سيطاني وسلام جبيلا وصعيبا ليتحى عن حما من جاء وأر صلاه جبيلا وسائبا قطعا عنهما يبقيه من جار وأرسلاه جبيلا وسائبا قطعا عنهما يبقيه من جار وحينما خرج المختار واجه بخبة من تراب وحيد الحار وحينما خرج المختار واجهم بخبة من تراب وحيد الحار وحينما أخرج ماذا؟ تراب وإذا نالوا فلا يشرب عند الله جل عند الله سألته جل بالمختار شم بهم ألا أزال الذي لاختار اختاره يا ربي كسب سيدنا محمد يا ربي كسب سيدنا محمد يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بالمصطفى ماي وصيتي حتى يحل أم الطفل ويسار فليحوج اليوم من قلبي تبايوان بجايعي وساد وأقدار وأن أكون بيهدي الموفيا أبدا بالالتفات إلى ما في أحيار وأن أكون الأحداء متحيا قد أنا نقاده تسال حيار وأن أكون شهيدا عابدا أبدا وقادما خدمة تاد وتطار يا ربي صل على المرتار والنبي انهم نداء له حد وتكرار ربي المرتار ثم بهم الله أخيتما لجري جرى أدنى جوي ku baax sëriñ Saaliw saa waaja làqu na àdduna ngi jooy ku ustaas mu ni sëriñ Saaliw saa waaja jàmbari sëriñ Tuubaa ja làqu na hukkal bu kaaw loolu moo ma jooyloo demuk sëriñ laa jooyloo ajjuma ci fajar le sëriñ Saliou dem ajjana laata muy dem wax na ay dénkaane ma xam ca tuuti àdduna jeex na bànneex ba wéy na dudd ko jot na ngi sëriñ Saliou dem na sa soppe dem na sama xeet ba dem na yaram ba ñibbi na daam sama tabara juuf sama soppe ba dem na ajjana tabara dem na saa soppe dem na sama xaj ba ñibbi naa daam tabara jóg jàmbaar ja wuy ji na boromam akamaa soppoon akamaa wóolu sama xaj saa soppe ba ajaa tabara dem na àjjana ci yàlla jël na saa soppe ci yàlla jël na sama xarit ba tabara ja jàmbaar ja wuy ji na boromam ci ji la waay ci ji la waay tabara jóg saa soppe ba wuy ji na boromam jërë ngeen jëf ustaas mu niru jërëjëf gay ustaas mu niru jërëjëf gay Maodo mu niru jërëjëf maa ngi ñaan ci bàkki sëriñ Saliou ndem am naa sëriñ Saliou yàlla guddoo sa fan yàlla yàlla o Oustaz Mbaye le 8 mars março, bitim réew Maodo o ma ni ma de mu ni damaa woo ni ma naa la fàttali conférence é bi ma ne ko man de Maodo maa ngi bitim réew وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واقتدى بآثارهم إلى يوم يبعثون بارك الله mbokki jullit yi mbokki waa Cees mbokki waa Kër Masamba Gueye ak li ko wër ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baalu xaq waaye di ñaan subhanahu wa taala yàlla na ñu boole defal njëggal jiital ci nuyoo bi ak ziyaara mboolem aimma yi fi ne jaar ko fa tabaarakallah Alaaji Jaase Mbay doomu Alaaji Njaase nag bu jël see doomu Alaaji Xalifa ci këram ànd ak moom ci conférence ñëw wéttali ko ku xam démb di nga laa waaye nuyu sëriñ Medoune Niang jox ko wàccuwaayam muqaddam moom itam ziyaar xaji Mulaay Jéy mii toog di suñu doomu wayjur wu tedd wa di bay Abdul Aziz Jéy ñu ngi ñaan jas biti min jaar yaram nuyu mboolem ñi fi teew waa jàkka ji di waa jumaa ci bàyyi Amadou ak mboolem magu jàkka ji nuyu invité yépp nag di góor di jigéen di mag di ndaw nuy soxna yu tedd yi ci tànt bi yépp nag te yàlla dogal fa tabaarakallah suñu jigéen yu tedd yi di waa gëm yàlla organise conférence bi yëgal ko ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ñëw wéttali si leen gëm yàlla nag seen présidente di ajaratu Fat Njaay ànd ak ñi mu àndal ñoom day xadi ñoom Adja Ndeye Marème Fall Ndeye Marème Ndiaye ñoom Adja Diouf Adja Ami Diakhaté Adja kenn ba soxna tabare ma jiitu yàlla yàlla yeesal yërmandeem waaye nuyu tamit jot ko ci ajaratu malaatu sëy di suñu jigéen ju baax daara alquran bi ñu yor fii mu nekk présidente parents waaye nuyu tamit madame Diallo préfet jox ko wàccuwaayam moom itam ñaan yàlla doole sàmm nuyu tamit suñu soxna fa tabaarakallaahu di ajaratu Sira Jóob yàlla dogal mu ànd ak ñi mu ànd ne ñoom Adja Maam Ulay Adja Mariama su yaay Adja Leena ko gunge yépp nag ok nuyu suma jigéen di ajaratu roqayatu bintu rasul dëkk fii ci fayu ànd ak oustaz abdul karim Seck ñu ñëw téewal oustaz abdullahi gay ndax dafa am liggéey bu mu nekk ca télé ba ca Dakar suñu kilifa alxaaji Idriss bu soxna sira teewee dooma pour teew moo teew na moo dafa am ci liggéey yu waaye ñoom itam seen xel seen xol yépp a fi yàlla mën na dogal sax ñu fekk suñu fi Seydina waa xaar yàlla tamit egsi nañu ma ndokkeel leen ci seen conférence bi weesu muy le 8 bi passé seen présidente di Adja na ànd ak góor yu baax yi mu àndal ñoom madame Sylla kenn desul Serigne Mansour Gaye ngi ne agsi si jotaay bi moom itam ak ak fa tabaarakallaahu mbokk yëpp mbay alxaaji as mbay su ma toppee nuyoo bi li ñu xamante duñu ko wax te tàkku saa jot la imaam dama waxtaan bërki démb wala démb ci fi ñuy wax tudde saareen ci ginnaaw mbuur ndekete bi may waxtaan sëñ Moustapha Sy Al Amine mu ngi koy suivre bi ma paree mu ne ma munir ma ne ko la béykat mu ne ma li des ci koor gi yëpp thème bi nga waxtaane dee ko wax ma ne ko ah conférence bu ñu jëm am na temam waaye imtisaalul awaamir laa yadur jëfe ndigal lor amu ci soxna yi dañu ne ma nañu waxtaane jéggale ak jëllale billaahi wallaahi tallaahi li may wax soxna sooda mën na ma ci seede démb ci guddi Abdourazaq bi may àndal mën na ma ci seede dama dem démb di conférence point damay waxtaan ci melokaanu jullit ak xol bi mu war a am ak bennoo jullit ak jéggale jéllale am benn soxna alaaji xabaan jërëjëf bàyyil ma yolo mën la buum bi xam naa la lay xaar tey xam naa la lay xaar suba kon jéem benn soxna jóge fa ci tànt bi raam raam ba egsi ci kaneen sukk ci kanamam Adja Aïda Fall ma nuyu da ziar sama ji eh, maa ngi lay laaj sànq bi soxna raamee ba egsi ci moroomu jigéenam jàpp ci loxoom ne ko diw ba tànt bi yëpp dégg mu ne ko baal ma àq billaahi diw ndaw si siggi xool ko mu ne ko baal ma àq kam ko wax laxasu ko moom tamit di jooy man xaw ma lu xew ma jékk jékk gis imam ba di jooy ma jékki jékk gis waa tànt ba di jooy man itam ma jooy jooylu ah ñëpp ma jooy ma jooy ma ne waaw lu xew imam ne ma mu niru ma ne ko la bayka mu ne ma mën a kii ak baay suñu ñaari soxna yi ñoo bokk ndey ak baay ëpp na quinze ans duñu tuddante fukki at ak juróom kenn du nuyu sa morom mujj génn ci kër gi kon bu soxna yi ne nañu waxtaane jéggale sama xel dem ci sayyiduna muhammad yonent bi dafa toog ne wa aleykum salaam ñu ne ko lu xew mu ne jibril la fi ñëw léegi xaji mu laay bi ne am na ñetti téeméeri jikko bu ci am lépp jéggale la ak bi si njëkk an tasila man qataaka kira billahi wallahi tallahi mergey mii bàyyi naa ko bis ni ki tey mergey bàyyi ba ñu dogu ba pare mu dem seeti ji këram indil ko teraanga ne ko bal ma àq ci li dégg ni maa la ko wax wala maa la ko def an la man qataaka yonent bi ne na bàyyi naa la yow nga dem jokk ko lii dalaa wax démb jooy ya commencé ca tànt ba laxasoo ba bari bu amee nag ñaar ñu yàlla dogal loolu seen diggante te seytaane man leen ba mënuñu ko def ci tante bi bu ñu démé ci kër ga nañ ko def idfa billati hi ahsan fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim gis nga yàlla ne ki la dikké def lu ñaaw dikké la wax lu ñaaw dikké seede ci yow lu bon yow fo tollu dikkel ci mom wax lu baax ak seede lu baax yàgg def lu baax su yàggee rek mu sopp la xoolal Seydina Muhammad mboolem ay soppeem la ca ëpp démb ay noonam lañu woon ñu dugal suñu kilifa Oustaz Abdul Baqi jërëjëf ku nekk soppa yonent bi li ci ëpp ay noonam lañu woon يرنتبنا أن تصل من قطعك كنا بينا ديو أدونك الآخرة يو دبل نجا جوك كوكو لما لا يواني ديسان يا أنتك يرنتبي دفن أصحابي كالنجوم بأيهم مقتديتم اهتديتم نحن صحابي سمي صحابة أي بديولين كوين تروي جب نفهم كفك سيدنا أبو بكر بابو سيدنا محمد ميغي توند يفر بي نيو السلام عليكم ورحمه الله صحابينك وعليك السلام جرجف اجايس يا ماتيندوي كي موي ويجورو الاج نجاي ньо اندون مكه moom laay yóbbu mu ne ni rek jàpp kaaba ga naa wooy jàpp naa kaaba gi <laughs> ma ne ko doo ko mukk ma ne ba naari fekk la fi <laughs> Seydina Aboubacar di saxaaba toog benn ko ko Aboubacar yaa yiis saxaaba yi siggi xool ko Aboubacar alalu bayt moom nga jël dem takk ci ñuy wax Habibatu bintu Xaarisha Aboubacar Siddiq Aboubacar démb bi nga génnee ci jàkka ji ba ñëpp dem maa dugg sa kër fekk nga yor biteelu sàngara di naan jërëjëf ñan Aboubacar mu ne ko la bayka mu ne ko sama dëkkandoo doomam ji nga xamante ni majeuragul yaa ko jël àgg ci moom Abubakar ku toll ni saxaaba rasulullah pour dal ci sa kaw ci sa biir mbooloo noo war a def Seydina Abubakar la ñuy ñokket taxaw ne ko kàddu yu ñaaw yi nga wax jëme ci man nee maa ko def saxaaba yi ñaanal leen ma yàlla yàlla baal ma ndax su ma ko yeewalee safara laa jëm bu dee danga koo wax nag ngir li xew topp kaa topp kaa bu dee danga topp kaa ba wax tuumaal ma lii te defuma ko su ma la jéggalul soo di safara te bëgguma nga dem safara sukk ci kanamu Abubakar ne ko aw na sëñ bi Mbayka mu ne ko xamalu ma la dara dara dara dama la doon sosal rek waaye bis ni ki tey ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kon fa afa wa aslaha fa ajruhu ala allah Sall nga jig fa mën a afaa moom élection yaa ngi waaj ñëw de xaw ma kuy jël réew mi waaye ki ki gën ci réew mi rek yàlla na ko yàlla jox bu kenn taxaw ne démb ñoo àppoo woon vent tey ñoo àppoo vent ñoo joxuñu woon kon duñ leen jox su ngeen ko defee du cuune wa tuuti man xaramaka yonent bi ne kii séddale xañ na ne ki ma xañ moo ma jox ki ma génn ci kër moo ma fat ki ne ma xamul ma jàng moo ma jànguloo Njaay ak ñi fa tabarakallahu ministre Augustin Tine macha allahu ak waa mairie Fandil yépp barakallahu ku la tooñ yeneen bi alayhi salaatu wasalaam dafa génn taxaw ci buntu kaaba gi bi julli ba yàgg abu lahab jël tànkam teg ko ci kaw bopp sayyiduna muhammad di ko bés yonent bi naan subhaana rabbiyal aala muy bés bopp bi yonent bi naan subhaana rabbiyal aala muy bés bopp bi di bés bopp bi ba sayyidina Aliyun traversé séen ko rek bu mu ko yonent bi siggi daal di sëlmal dem këram ne Bilal mu ne ko labbayka ya rasulallah mu ne ko ëjjal ma tàndarma ëjjal ma ëjjal teraanga yu bari mu ne ko kaay yóbbul ma ko sama baay Abu Lahab tey yóbbee na ma baaral sa doom lu jege genn wàllu waxtu te masuma koo def kon wax fa am man zalamak yonent bi na nga jéggal ku la tooñ parce que boo jéggalee tooñ te la gën a bi mu nekkee biir màkka moom yonent bi am kaarata yàlla yónni ko يلا ما يوني اني رسول الله ندا فجين تاوتو كعبك نعسلام السلام اهل مكه ييب جين منلن اعبد الله انا لا اغني عنكم من الله منو منن دره كي كانو يالله ودومم دي فاطمة نكا يا فاطمة سليلي من مالي ما شئت واعبد الله أنا لا أغني عنك من الله شيئا لك ما لولا نيختي على المجهره sama alal ma jox la pour wax la yenent bi ni mu doon jéggalee bi mu waxee loolu Abu Lahab ne ko tabban laka yow yaa torox saaga ko saaga bu ñaaw yenent bi nekk biir Màkka di woote ni yàlla kenn la bi mu demee ba mu tar ay mbokkam embargo ko bind benn lettre taf ko ci kaaba gi na yonent bi bu ko kenn nuyooti ku mu romb ba nuyu la bul ko fay nañu ko bàyyi ci dëkk bi lu muy jaay bu ko kenn jënd ñu ne tam suñu marchandise buñ ko ko jaay baax na ba jafe-jafe yi tar biir màkk mu toog xelam mu ne ku am néegu bàyyi am nga néegu ndey sama néegu baay ñoo ma jëf-jëf ju ñaaw ji kon bàyyil ma seeti ji sama waa néegu ndey yonent bi génn màkka ànd ak Zayd ibnu Haris dem Taif pour seeti ji ay nijaayam jërëjëf bi mu egsee ne assalaamu aleykum ñu ne ko wa aleyka salaam yow a kan mu ne ma ne Muhammad ibnu Abdallah ñu ne ko laay doomu Aminatu bintu Wahbin mu ne waaw ñu ne ko yow suñu jarbaat nga ñun ñoo di sa néegu ndey mbaa jàmm la indi yeneen bi ne leen du jàmm de ñu ne ko lu xew mu ne sama néegu baay muy abdallah abdul muttalib cheybata hasim nga topp ko ba maam ya jeex yàlla ma yónni ñu bañ diira ngi nii kenn waxul ak man ci dëkk ba tongu nañu ma embargo nañ ma séqatuñoo man dara te affaire yi tar na moo tax ma dellu si ne xaaral ma seet si sama néegu ndey ngir ngeen fat ma ñu ne ko luy sa problème ak sa néegu bay mu ne waaw yalla ma yónni may muhammadur rasulullah dama len wax ne len bàyyi len seen xërëm yi ngeen di jaamu te ngeen ñëw ñu jaamu yàlla ndax yàlla kenn la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nijaay yi ne ko togal ñu ñëw Sensor soppe bi sayyiduna muhammad Adja bint rasul tok ni jaay yi waxtan ne ki neegu bayam dañu bax buñu ko toroxolon duma ko ray ko su boba du di suñu yalla yi téeméeri yalla suñu problème lijjantee koogul mu naan benn yàllaam bi mooy problème yi ki kumu yapp pour wax la affaire yi xëyul yomb de ku mu yàq ñuy waxtaan seen biir ne nu ñuy def ñu ne nañu génne dof yi dof yi bu kenn way nag xam naa ne waykat yaa ngi xasan xam naa xam ngeen fa ma jëm na dof yi génn dof yi génn nañu jël seeni xeer na xaj yi génn xaj yi génn na xale yi génn xale yi génn jërëjëf madame Ndaw xale yi jël xeer yi di sànni sayyiduna muhammad xaj yi di mbaw yonent bi dof yi di sànni zeyd ibnu xaaris di capté xeer yi naan bëgguma xeer dal ci kaw sayyiduna muhammad bi ñuy sànni am bu rëcc dal rasulillah deret ja dina la sotteeku yonent bi capté deret ji naanaat ko naan kayfa yuflixu xawm faalu baada nabiyihim nan la ay gaay di texe ginnaaw ba ñu defee lii seen yonent Zeyd ne ko looy def nii mu ne ko deret ji lay bañ mu toq Taif ndax benn toq deret ci dëkk bi dëkk bi yépp alku te man rasulillahi ma ñu alku rek yàlla yebal Jibril ne ko ñëwal dem Taif جبريل جب السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا سيد الجن والبصر السلام عليك يا حبيب الله يرنت تبينك عليك السلام جبريل لخو الله ما يوني لو يالله وخ mu ne ko yàlla nee na gis na lu ñaaw li la sa néegu ndey def mais yàlla ne ñaari montagne yi nekk ci taif yow la ñuy déglu boo leen joxee ndigal rek ñoom ñaar ñu daje waddi biir taif ku nekk taif dee ndax liñ la def ñaaw na mais déglul sayyiduna Muhammad moo tax soo bëggee noppalu da ngay mel ni bi muy jéggale jéllale xanaa yàlla demal nga ni yàlla su fekkee ba tax bu ne ko man muhammadu rasulullah ñaaruma moo tax sëriñ Cheikh ku dul mer baa doola nga waaye kuy xam ma màttee du dagg du li qawmi fa innahum qawmun la yaalamuun yàlla baalal ñii dañu xamul suñu xamoon duñu ma def nii yàlla ñii bu ñu ma gëmul tey seeni doom mën nañ ma gëm ëllëg bu seeni doom gëm seeni sët mën nañ ma gëm ëllëg Jibril wax yàlla yàlla dina Muhammad a gore yonentu yàlla Nuux de waxul wala yalidu illa fajiran kafar bi situation bi tare dafa ne yàlla bul bàyyi daal fi bàyyi soo fi bàyyi ñii la jur rayal ma ñëpp soo bëggee mën a jéggale alquran nee na wal al xays yiw rek pour nga baale il faut nga mën a wan mer xam nga daan nañ ko def lu ñaaw xool bi yëngatu dañ koo fekk mu taxaw ñu ne ko anta saaxir yow yenent bi njabarkat bu bon bi anta kazaab doo waxkatu dëkk lu ne ñu adressé ko ko mu jekk jékki rek xol bi yëngu mu ne man may yonent yàlla yónni ma samay mbokk naan ma doo waxkatu dëgg njibarkat nga rek jooy ba yàgg bopp nag usiya Moussa bi akbara min hada fa sama nawle te tegoon nañ ko lu gën metti mu kon muñ na kon wal kaasimin al xays soo bëggee di jéggale del wan mer ah alhaji sec yi dafa metti babakar di xool attewul Ousmane attewul Alioune attewul boo yéexoon ma de yonent bi ne ko waye jéggal len rek waa ji ne yonent bi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah bis ni ki gëm ni yàlla lay yoni yonent bi ne ko kon babakar sa mbokula usman sa mbokula la sa mbokula mune yàlla kon baal

low.

اها uh-huh. وبخيله وبخيره جلب الورى ولمن اجابوا نيلو خير مرام درجه فنغودا دافا ام كوني واخ ابو محمد ابن عبد الله ابن هاشم كي وجل بالورا بخيره جل بوك لينغودا واي من جي تمبي موتاخ ما بايكو دافا ньоو فك يوننتي بي كوميرسان لا وون bi mu ñëwee fekk yonent bi toog mu ñëw ne ko Muhammad daat koy sàllawlu Seydina Ousmane ne ko amal yar kii mooy Seydina Muhammadu Rasulullah mu ne ko yow lay sa sang yow lay sap yonent man mu Muhammad laa wax waaye ci mbaaxu yonent bi mu ne balin ko mu ne ko man sax dara indiw ma fi dama am soxla 1000 francs may ma yeneen bi làmb ci poste ba xaaji mu laay fekk fa téeméer mu ne ko lii nga fi fekk mu ne ko may ma ñaan la 1000 francs nga may may téeméer coow la bëgg a bari yeneen bi ne ko xaaral ñëwal ñu ànd sama kër ànd ak moom ba këram ñëw ne soxna yi lu fi ne ñu ne ko nangam mu dajale lam am ko am ma jox la teraanga mu si gine ko yaa baax yaa yiw yaa rafet jikko yonent bi ne ko lii nga wax soo ko waxaatul sa pénc ma sama gars yi am na lu ëmbal ci seen demaat pénc ba mu ne ko nañu dem bi ñu ñëwee ba ca pénc ba mu ne leen xam ngeen ma ñu ne ko déedéet jërëjëf sama jarbaat yàlla boo ko ñàkk xam ngeen ma ñu ne ko déedéet mu ne maay commerçant bi ëpp alal ci dëkk bi dama déggoon ne seen waa ji day jéggale day jëllale te ku tabe la may xool dëgg la wala du dëkk waaye xam naa ni moom la kuy jéggale la kuy jëllale la ku tabe la ne bis ni ki tey ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulallah kon wa bi xayrihi bu yonente bi defante woon ak moom du dugg ci diine islam jëflante woon ak moom du dugg ci dina islaam léegi nag pour nga mën a jéggale mën a jéllale il faut nga nekk oustaz abdallah nit ku dëggu parce que jéllale ci pénc mi jéggale ci pénc mi te la ca xool ba muy jéggalewu ma dëgguwoo as sidqu ndax inna xuluqa sidqi min mutammimati l imani billahi taala fa ala al muslim an yasduqa bi aqwalihi wa yakunu sadiqan bi afaalihi wa an yuamila annas kulluhum bi sifati sidq baal naa la ci pénc mi baal naa la ci pénc mi te la ca xol ba booy su ma ko jéggoo rek jéggoo rey ko dëgguwoo الشيخ الحاج عبد العزيز دباخ مالك مبي يلا يلا تاس تباركين مام الشيخ الحاج عبد العزيز دباخ يا ربنا يا ربنا يا ربنا إليك نشكو ضفنا أها وحاربنا وعجزنا في الزمان lii mooy lii àggale waxtaan bi jërëjëf Moulay sa turando ban ban ala jabdu moo ne yàlla maa ngi lay ñaan yaa rabbana yaa rabbana ilayka ashku dufana wa xaalana wa fi hada zamani muslim ban jamono gaay ku bëgg a jéggale di jéllale doo dog mbokk doo dog mbokk alaaji Abdu ne maa ngi ñaan yàlla nga musal ma ci jamono jii nga xamante ni zamanu rahim xoolal yàlla nee ana arrahmanu xalaqtu rahima wa shaqaqtu laha isman min ismi faman man wasalaha wasaltuhu wa man qataaha qataatuhu yàlla nee na man ay yàlla ma jël mbokk bind ko mu jóge mbokk ma ala jàpp maa ngi muslu ci yàlla nga ma musal ma bañ a bokk ma bañ a bokk si ñi nga xamante ne dañuy dog mbokk al jawru mooy jeng ak tasaalum mooy tooñ Babacar xam nga luy tasaalum mooy ishtigaal bi uyubi naas hmm? ashgaltum bi uyubi ixwaanikum فلا ترون عيوب انفسكم امنا توغ كات بو خامتاني نكو يوبي لب موي لوني نيتو سيك دومو ادمي تا امنا سيك يو نك تييو يالا خام كو سوتور الله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاسا الا جابتوني التظلم توغنتي جي ريومي خول لي لي خاو ني ني سا تليفون baal leen ma baal leen ma deux minutes kar leen ma sama live ma ñëw tey moom kaa yi maa koy traité ma ñëw deux minutes mu ñëwaat jël sa moroomu gor ni yow yàq deram sekkere yu ma sa dox seen diggante nga génn ko wax ko ci net pare partagé nga daje koo xamante ni nag moom dof la bu jotee message ba muy lu ñaaw mu partagé bu dee lu bon mu denc te yàlla ne laa yuhibbullahu jahra yàlla ne na bëgguma kuy partager kon tooñ ak ajab ne na bu ñu ko defati wal xawdi fil maharimi wal xawdi muy xuus xam nga luy xawdi xuus ci lan fil maharim yi yàlla araamal ala jabdu ne yàlla nañ ci yàlla musal ak tashaatum xam nga mooy lan nit ku rànkiñee mooy def loola mooy lu dal nit nga ne ndokk la ñu waxoon waaja dañ ne ko sa jamaale bi ñeew yi jàpp na ko rek mu jooy hmm? sa waay lu xew ñu ne ko sa jamaale bi ñeew wi jàpp na ko muy jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dina rëcc ndax ñay dafa ñàkk fayda dina xool ba mu rëcc ko mooy attachaaton lu dal nit nga ne ndokk yàlla na ko dal te yonent bi ne loolu du ko jullit sa mbokk jullit su amee nga demal nga ndokkeel ko su amee nag bu dal ci kawam ne masta walla jàpp ne attachaatum yi xew ci dëkk bi yàlla nañ ci yàlla musal xam nga luy xeyal pexe pexe gis nga iñaanante gi li ci ëpp xam nga lu ko waral ñàkk nangu li yàlla def leelaa ji dirisa naan nga juddoog nit ci koñ bi ay Aysata ngeen yarandoo ci koñ bi màggandoo ci koñ bi yàlla ma ne ko teraanga mu romb la ak nga ciy pëtu lay xeetu am yii yàlla dama ci yàlla musal xeetu am yii yii yan am nga ne yii xew yii nii man daal yàlla ma ci musal te kat fa mu jàpp ni fa la yaakaar ni fa la ko amee jaar na fa ba ay dàllam dagg da koo mënta am nahnu qasamna baynakum maishatakum fi lxayaati dunia wa rafana badakum fawqa baadin daraja wa xiilin pexe xam nga luy pexe xëy suba ba ngoon jàpp ci sa xol rek diw na échec xëy suba ba ngoon sa yitte yépp mooy lan naa seeti ji sëriñ sàngam pour lan ma pexeel diw ba diw ak diw duñu jaaroo naa pexeel jëkkër ak jabar ba ñu tas naa pexeel doom ak ndey ba duñu tuddante naa pexeel wujj ak wujju ba ñu mel ni safar caas ala jàpp du ne musiba la mooy xel koo xamante ni saa yoo xëyee sa yitte yëpp mooy lu échec loo doomu aadama والنصر كل هاشمي وهبت كل حرمة خلق هبت كل حرمة gaa yi dafa am ku ne ma muniru ma ne ko labbayka mu ne ma kaas yaa wuute kaas yi ñoo wuute waaye ku xëy di nga guux yàllaay seet nit def ci moom cër ñu xormal ko yow nga xëy suba ba ngoon kii ñu xormal kii ñu taal kii ñu jox cër naa fexe ba xormam xotteeku ci dëkk bi ma vilipande ko ni'mati booboo yées booboo yées xéewal yi yàlla koy joxe yàllaay séddale mooy def milliardaire diw millionnaire diw lii diw lii diw lii soo ko weddee nag ba bëgg a nit nga iñaan bëgg a nit nga xool ko bon soo deful ndànk yaay mujj tàbbi ci biir pexe gis nga ku bëgg a noppalu rek defaral sa xol boo defalee sa xol am la yàlla jox doomi Abdallah Diak Amina bàyyi Fatima Roqaya Zeynab bu Umma Kalsoom Muhammadu Rasulullah ya Rasulallah Aja Mariama déedéet déedéet mbay dix minutes moo ñu dese ñu julli takkusaan Maodo dañuy julli ñëwaat ndax kuy waxal yàlla ba julli jot soo ko bàyyiwul waxalatoo yàlla sa bopp ngay waxal damay laaj tant bi انا صبي رسول الله يفني انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم بابكر جليت ان بعد الزن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم problème yu bari dara waralu ko lu dul ñaaw njort gi ci diggante yi bu ñu rafetalee njort yi lépp baax àdduna baax alaxira baax yàlla nag inna allaha la yansuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yàlla du xool jëmm yi du xool dara xol yi lay xool ak jëf yi ndeysaan yonent bi moo ñu gën waaye xoolal wa laysa xayrul wara huwa akmalul wara ويصفح سفحا عن مسلمين لسان الحاج باجي بي جام يرنت بي دانو فايل دول نياو مسلمان دو فايل دول نياو مي دي جيغل دي جيل Gabon ba mu ñëwee lu mu wax irham jami al wara Cheikhul Khadim bi ñu jaarale ak moom fi ñu jaar ak moom ba mu ñëw dañ na ko Mbàkke loo bëgg mu ne ko yàlla yërëmal mindeef yëpp laa wax ndeysaan yàlla bu ko jakkati ana sa pay bay Serigne Fallou Mbàkke bay Cheikh Moutada Mbàkke ndeysaan xamante ci dàq bind moo gën a rafet ñëpp jikko dootoo di gis ku mel ni ki rasulillahi Muhammad ku mu gën jikko la gënee Babacar Diaw waaye ana sa bay bay Sëriñ Fallu Mbàkke yi ci tànk Sëriñ Tuubaa ne ko koy Ahmad guddi na bu ñu yàlla yërëmee yàlla sante Mouhamad a tax waay xanaa xamoo xéewal gi ci àdduna yonent bi la asamaan yi juróom-ñaar d'accord nañ ne Mouhamad loo tabe tabe doomu Abdoulaye Diak Amina jamoo la gën a tabe waaye dama jël Seex na Seex Saadu ulu Seex Mouhamad fa maami Cheikh al Khalifa maami Cheikh Adrame lu Cheikh na wax dañuy julli ji tàkkusaan jàllu si Cheikh na ne maa ngi nelaw mais mënumaa nelaw lan moo la tere nelaw mën a bëgg sangu àdduna ak àllaaxira Cheikh na demal faju mu ne dama sama feebar bi rey juróom-ñaar asamaan yi juróom-ñaar Muhammad day supérieur Cheikh na ne sama maam mooy lamp bi leeru àdduna ak àllaaxira waaye demal ma ci borom boo ne kaare ba bàyyi Cheikh Tidiane si. sëriñ Babacar si yëkkati leen seen loxo ma jox Abdou Aziz ndeysaan ah sa góor ga ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla bu ko ñàkkati barke sëriñ Babacar si ndeysaan waaye ana ñu sopp sëriñ Babacar si yëkkati leen seen loxo ma jox Rasulillah guddi na guddi na الله مولاه رفع بلا خلوة أصحابه علنا حتى استقاموا فيا لله من حاه بهمة أو بحال حاز تربية نعم المربي منب الحق يرداه الجنان another yo-yo. stop. julli jot na Habib waaye Habib. kàddu yu fi war a jóg délégation monsieur le maire ministre Augustin délégation baa ngi teew kilifa yaa ngi nii te am na kàddu yu war a jóg waaye la ma waxoon rek kuy wax ba julli jóg julli te ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullah barakatuhu jàkk jaa nii رفعت بالقرن أو قرن سوالب أو قرن المنازل ميقات Yeni sahabeyi dinle. Ay ben الأخوة أن أفاق بالخرن أو قرن سوالبي أو قرن منازل إتاتي nekk sopp yoon defal nii jërëjëf si loxo ci ak أنا لم يسكر بالجود أو نزل عين وإي صرفنا فنال العلم كالقلم وكم يلا لني wa yàlla wa mu tuximan ku bayoon ña bañoon ni yoneen torox nañ man de bokkuma ci bayimal wa mu tuximan bayoon yoneen torox nañ ci umayata ñabañoo na yoneenu torox wa mutiimun ubayo barukaanata barukaanata barukaanata rukaana rukaanata barukaanata mafacaka rukaanata barukaanata بحر كانت بحر كانت بحر كانت أنا صبينا أنا صبينا أنا صبينا بدي سيري a ku bëgg Serigne Babacar acca ña bañoon yonen abal hëb cala abal hëb cala أم جميل جلا أبرها جلا أجني سبني يونن سيدي الحاج مالك جلا سيدي بابا كرجلا الحشر يوم القيام الله خشي النبي الله خشي النبي Allah khatiyo nemi Allah khatiyo Allah hakkıyla emin حكيا نجوك ثم الأمر يوم حكيا نجوك الله يوم حكيا نجوك يمني يوم حكيا نجوك أختي الكبرى هنا بشر جنة بها Yeah. وخطي النبي إمام الرجيم إمام الرجيم جوار ويوم وخطي النبي إمام الرجيم أتى وخطي النبي وخطي وخطي وخطي النبي I'm gonna be a man. I'm gonna be a man. I'm gonna be a man. لم يالله يلا ويت قلب ويرن عندك وفتي ربي أعلن ليت قول فتي يوم القيامة وفتح وفتي النجم كلام قل ودل ويلي ام سولو ريك موي ني فخه با ديفارات سوني جيكو غيس نيت منو جيغلي نيت منو جيللي بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت لك فتوكل على الله يلا نينا يونت بي سو نيكون كو خات nga seen nit nit ñi ñeme ko di ko fréquenté jikkoo ma tax waaye yenn saa yi nga seen nit mu wéet kenn ñemewu ko jikkoo a tax bu dee ku la dëpp ma la nga toroxal ngir sa jikko ju bon ku la dëpp ma nga ŋàññi ngir sa jikko ju bon bu yàggee ñépp war na ginnaaw yàlla na yonent bi nag yow nag meloo noonu kon faafu anhum waxuma sax loola ku la tooñ jéggalal waaye wastaxfir lahum xam nga yenn saa yi nga tooñ nit ñu bindal la tiyaaba ñu bindal la bàkkaar mu nekk seen diggante yéen ñaar yàlla ne waxuma sama digganteeg yow mais ñiy wax ci ñaaw ci ci yow lu ñaaw jëme ci yow sax wastaxfir lahum jéggalul leen seen borom kon ñu defaraat jikko yi xam ni yonent bi am na baay am na ndey am na ay maam waaye bi ko yàlla di tagg taggewu ko dara lu dul jikko wa innaka la ala xuluqin azim jikko ji gën ci jikko yi moom nga yor te moom lañu yàlla royloo te nee na bi ma yàlla yónnee yónniwu ma pour seeni poos yónniwu ma pour seeni alal mais daf ma yónni pour ma fexe ba seeni jikko baax innama bu'ithtu li utammima makarim al axlaq kon ku fi indi aajo yal na la ko yàlla fajal ku fi indi njàqare yal na la ko yàlla teggil waaye tawat ñi yal na leen suñu borom saafara waaye jiitu yi ku si nekk ci xéewal yal na ko suñu borom yokk ku si nekk ci safaan yal na ko suñu borom teggi yàlla na yàlla raxas xol yi tàbbal ci imaan ah gërëm nag mboole ñi fi teew muy pàcc yi di marraine yi fa tabaarakallaahu dëkkandoo yi bàyyiwuñu kenn ah di sant bu baax nag suñu wëllëre di El Hadj Ndiaye Abdoul Aziz El ñu ngi lay seedeel mbaaxam ak cofeelam ci ñun yàlla boole ñu ñu am lante am lante gu rafet way juróom wu jigéen bi muy dem màkk mu jël ko teg ko ci sama loxo ñu ànd ànd bu rafet elage sama aajo tab ci noppam lay bañ a dégg lu mu dégg lu ma woo mu taxaw ci ci biir ak ci biti wallaay su ma ko bañul woon a tooñ dinaa feeñal yu baree bari waaye nag moom xam na man xam naa yàlla xam na gërëm nag suñu jigéen yii di waa gëm yàlla ñoom ñii lii ngeen amal ci koñ bi sagu koñ bi la parce que bu ñuy dégg fu ne ñuy dem fu ne te lii amul suñu koñ su boobaa suñu échec la te wa anzir ashirataka al aqrabin yàlla nee na la ngay def seetal ñi la gën a jege mbay ci sa tànk kon ñu gërëm leen ci seen taxawaay ñun ñaar lañu am daara ji jàkka ji te lu ñu woote ci daara ji ñu fekk suñu ci lu ñu woote ci jàkka ji ñu fekk ñu si kon daañu leen gërëm daañu leen sant daañu leen ñaanal yàlla muy waa gëm yàlla di waa xaar yàlla xaar yàlla le 8 mars bi passé ñoom la won. tey jii gëm yàlla la Ta defe na né yaakaar yalla sax mi waja dék. Waaw, waaw mo do wax na ma ko waa Kër Masamba Gueye yii tamit Sen conférence quatrième jour ci korité incha allahu ñoo ko def ànd ko ñoom Habib ak équipe bi su ko défé ñu gërëm ñëpp sant ñëpp madame Diallo jërëjëf merci beaucoup encore yalla yalla yàlla Adja Ayda jërë ngeen jëf Adja Ndeye Gueye Koli suñu yaayu bopp ñu ngi ko séen macha allah mère Gueye jërëjëf yal na yàlla fay la sa xol yal na yàlla fay la sa xol yaa antaka bàyyil ñu kenn ku ne mën nañoo jaar ci sa tur dañuy bañ rek guddeen ñi ñi te guddi na ba pare li des rek Hadji Malick yow la ñuy jox kàddu gi nga dugal ñi nga war a dugal waaye balaa ngay dugal nag ana alaaji Mortala Fall Mortala ngeen baal ma rek donte trois minutes mu barkeelu way après nga dugal paroles yi dégg nga incha allah ndax defe naa ne moom moo des ci ñu war a way te wayuñu sama soppe la sama lépp la am muhammadu rasulilaay yaa leen man yaa leen man yaa leen muhammadu rasulillahi abdallah mooy baayam aminata mooy yaayam fatima maamam seyduna muhammad gisul baayam ba tey yàggul ak yaayam jooje mooy kooko kan moo di baayu fatimatu bintu rasulillahi seyduna muhammad salli yaa rabbi suma salima laaman

أنا صبيون إنما مثل صفاتك للناس كما مثل نجوم الماء أنت مصباح كل فضل فماتس تس دور إلى أن بك الله يا رسول الله يا لك ستدل من عالم الخيب ومن آل آدم الأسماء لم تصل سيدنا محمد لم تصل محمد رسول الله لم تسل مسلا دي واتك ديتك ديتك ديتك ليلي لم تسل في دما إلى الكون تقطع لك الأمهات والأباء ما مدت بدو تجي كمان مصطفى ما مدت جيجين تسوك جور كمان سيدنا محمد ما مدت فترة من الرسالة بتلقوا ما بك الأنبياء تتبعها bikal usoro atas mau bika aliyahu bada aliyahu jërëjëf Mana ne eh, Muniru da nga fi yàgg lool billaahi da nga fi yàgg da nga wér da ci lem ji moo tax yemb yi topp la fii ma ñëw nii fii ma ñëw nii tey ginnaaw ma ne quoi ah, mu ne ma doo ma dimbali dem ma ci conférence am bi xam naa ne nam nga ko man ne ko fan la mu ne ma kër ma Samba Gueye ma ne ko bu soobee suñu borom bu ma ko xamante naa def tuuba dem fa barki yonent yàlla Muhammad Xaadim saa doon nit ku baax ku mën a wax lu baax am na sama doom yu ma fi fekk fii mu di doomi Matar Ndiaye kii tagg yonent bi te génn àdduna xam naa loolu bu baax a baax man amaa may dugg ci tànt bi nga ma jox barke rasulaay kon ñu ngi yemale kaddu gi fii yan nañ ko teewee na gën a déwén ci barke rasulillahi waaye nag yal na am ñu manqué tey dund ñi war a dem États-Unis tey jii bu déwee ne ñu yore conférence bi bu leen fi déween fekkee lu baax jërë ngeen jëf amin amin amin yaa Cheikh Ahmadou Tidiane ibn Sall ñu bëgg Cheikh Tidiane sunu xol ya fi jaar ma jàpp ma jàppal ma ma tey ak ëllëg bul ma seetaan nga fóot ma laabal ma nga fillil ma àggale ma si Abubakar daan

a, a, ay ca leen ñu ñaani faal ndax yàlla tuuri naa parce que la wax leen man ci jàllaat man ci jàllaat man ci jàllaat dindi di diine maa leen la leer ñu sant ko bu baax waaye nuyu maram Diallo macha allah di taalibe Serigne Babacar Sy ñu ziyaara ko bu baax ak délégation bi mu àndal yépp ñaan yàlla yàlla yàlla fay leen mose Cheikh Ndiaye jóge ba kër Thiem ànd ak délégation bu mag yaakaar naa ni man ak moom bi ñuy dem ñooy déggante téléphone mu xamal ma ne ma ñu gisante ak ñu ñàkk gisante yépp na waa gëm yàlla xam ni soxna Aysata sama jigéen la sama lépp la su bis ba jotee dana ànd ak ñi ma am ñëpp ñëw incha allah te noonu la ko defee soxna Ayda Fall mu ngi nii toog sànq bi ñuy nuyu Adja Sira lañuy ñuy nuyu sunu yaay Adja Maam Njaay waaye bi ñuy bi sëriñ Muniru di waxtaan ci lay agsi moom Adja Ayda ñu ziyaara ko bu baax moom itam ndokkeel ko ak Sira Diop bokk ci bis bi waaye moom mi itam faal wala gay bokk ci ñu jagleel bis bi macha allahu mu jël cër yëpp joxe ko ngir yalla ak mbokk ngir yalla ak dekkendo yalla nako yalla fay Adja malado sey ñu ngi lay sant bu baax di gërëm kaddu yi nak kaddu yu joge ci présidente Adja Farfal Diop mom lañuy jox kaddu ci benn minute bu gatt ñu jox mam mor mbay mi Adja Fat ndjay yobante won ko ay kaddu ñu wax Fat ndjay na jege ci gaaw ndax fi toll li ci dess lepp fast track lay doon suñu paré ci yooyu kàddu yi ñuy yëkkati wax mooy kàddu bi jëm ci waa ATT mooy association des taximans de Thiès nga xamante ne dañu am kóllëre ak El Hadj bi ñu leen yëgalee bis bi ñu def seen délégation ñoom ñëpp ñëw dinañ leen jox kàddu yu gàtt incha allah beneen kàddu bi mooy kàddu bi jëm ci ki teewal monsieur le ministre Augustin Tine mooy kàddu bi nga xamante ni mooy kàddu alaaji di kàddu Augustin kàddu googu danañ ko ko jox muy monsieur Abdou Aziz Ñing ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay suñu noppee ci kàddu googu nag incha allah am na ay teraanga yuñ ñu jox benn bi jóge ci Adja Ndeye di marraine ci bis bi beneen bi jóge ci Adja Khady Ba ñu gën koo miin ci Didi Ba beneen bi jóge ci ajaratu Sira Diop ak doomam di soxna Kumba ba borom MGS shop benn beneen teraanga bi ñu joxe mu jóge ci alxaaji Idrissa Gaye kon yooyu yëpp la ñuy boole suñu paree mbay jéey mu ngi fi dana jël kàddu alaaji Idrissa ci lu gàtt incha allahu rabbi jotal kàddu yooyu suñu paree nag kàddu yële ay kàddu décoration la ñu indi ko ñu joxe ko ñu joxe ñaan ñaanalante ba beneen muxaddam mi dul ñang sëriñ Muniru mu ngi lay sant dina gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla fay la imam Maodo Gueye moom itam mu ngi ci jotaay bi ñu ñaanal ko yàlla Abdou Aziz ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla fay leen waaw suñu tollee ci cadeau yi nag incha allahu rabbi rek Habib Ablaye Seye ngi noonu nga poñe ko tegal ma ko ci digg bi xanaa dina fexe ba cadeau yi ñu joxe ko incha allah kon bismillah Mamor bismillah Fat Ndiaye jegesil temps bi dafa dafa dafa dafa dafa gaaw waa TSP bi ñu nuyu leen bu baax nuyu leen bu baax jaarale nuyoo bi ci xaadim mu jotal ñu ko di soxna Anta di sunu jigéen di sunu lépp ñu ñaanal leen yàlla yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla yëkk gën a yëkkati télé bi fi ñuy teg dégg télé yëpp ci àdduna bi ñu dégg leen fa ci barki yonente bi وبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخ النتيجاني شريف خدس الله سره وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي ñi ngi sant yalla bi julli ci yonent bi di nuyu ñi fi ñe al hadji muniru ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa way di la begi di nuyu di sidi Hadji malik mawdo gay mi nga xamni moy suñu buntu manani ci daaira gem yalla gannaaw ba ñu nuyu suñu magi bop suñu doomu bàyyi soxna Fatou Ndiaye Diop yal na yàgg wuyoo Fatou te bañ a gaaw Fatou di nuyu juróom bu jigéen alaaji Malick dangaa baax rek soxna Fatou Ndiaye mii baax lool dëkk mi nam ñi ñëw ànd ak Serigne Babacar bu Kër Madiagne bu ñu ñëwee ba fii te yëkkatiwunu kàddu yi mbégte yi mu ñu wax pour jëme ko ci yéen bu ñu demee bu ñu génne bu ñu fi ñëwee di xoole ba am fi certificat xol buñu génné bërepp kulli xulli fayiko te buñu démé buñu xef ñu ni dàq tabarakallah dafa am benn wax bu Seydina alline waxon buma ma soxna Fatou Ndiaye wax ni dafa valable ci aladju Muniiru valable ci kep ku mu bokkal te bako ko alline di wax ci circonstance la ko waxee mais man na valable ci seen jëm muy in yuridu llahu linnaasi xayran fa sa ala khayrin Yalla bu namé ci famille yu day jël borom bax jël borom xam-xam bu yaatu gannaaw tek ko ca kanamu famille ba mu nekk sagu famille ba soxna Fan nday wax ni lolu valable na ci yeen di ñaan yalla yagal seen taxawaay ci barke Yonent bi mo xon ma nima santal ma alaaji munir ak jigen ñim ko bokkal ñepp kep ko nga xamni ne nga ci daaira gem yalla ak benen daaira bo meuna bok soxna Fan nday sant na ñepp gërem na ñepp fi ñu daanele kàddu gi nag Alaaji Maalik gëm yàlla daa am solo jaabir benn saxaaba la woon ci saxaaba yéen ci yàlla Muhammad yi Moustapha toog këram ñaari weer jekki-jekki rek lekkul naanul xiif di ko bëgg a rey sang bi jekki-jekki rek daal di génn di doxantu bi muy doxantu jaabir gis ko ni kee de njool màkk la alaaji Malick bi njool màkk gisante ak jaabir ndax damay wax ni nit bu ne jàkki nit war na mën a xam soxlaam war na mën a xam li ko metti yent yàlla Muhammad ànd ak jaabir mu muniiru ba ci biir kër gi ñu teg njël màkka ci saal bi jaabir génn ànd ak soxna si ñu ne ko am na nu gankat gan goo xam ni moo gën ci gan ni kaay ñu lottal gàtt bi ñu amoon ci biir kër gi tere la ko njël màkka bi jaabir rendee gàtt bi amoon na ñaari doom ku mag ak ku ndaw ku mag kaa ngi xool ku mag kaa ngi xool ni baay bi di def xar mi jaabir rendi xar mi dugg ci biir jox soxna si ñu ko demal marché nga wut lu ñu booleeg ndawal gi jox Moustapha ku mag ki daal di woo ku ndaw ki ni ko kaay ma wan la ni sama baay doon def xar bi daal di rendi rakk ji rakk ji tëdd fi xar mi tëdd ñaari néew am ci kër gi ku mag ki tiitaange jàpp ko mu daw ci pour bi poos si dugg ci biir sedd guy soxna si jóge marché ñëw ci biir kër gi fekk fi xar mi tëdd ñaari doom yi tëdd fi jaabir ñëw ni ko na nuy def soxna si ni ko dama bëgg ñu gëm yàlla ñaari doom yi yent yàlla Muhammad ma ko gënal bu njol màkk xam ni am na lu ñu metti demal ci biir nga toog dalal Moustapha ma toggal ñami Moustapha andil ko bi mu toggee ba noppi indi ci saal bi jox Moustapha ni ko lekkal yeneen bi dem bay jël loxoom di ko yor ci ndab li ni jaabir ana ñaari xale yi nekkin ci biir kër gi soxna su ni ko lekkal seen yaa di leen a yónni bu ñu ñëwee dinañu lekk mu ni ko déedéet kilifa du lekk bàyyi njabootam kilifa du naan bàyyi njabootam yent yàlla Muhammad wax ko loolu jaabir jékki-jékki ni Moustapha ay la yéwén képp xale yi dañoo dee yeneent bi ni jaabir demal ni leen nañu ñëw wuyu si Seydina Muhammad jaabir ñëw ba tiim ñaari doom yi deewoon doon ay néew kenn ko ci nekk mu wax la kaay wuyu Seydina Muhammad ñoom ñaar ñëpp daan ni foo jëjjub ni papa ana yent yàlla Muhammad mi ngi dégg ci biir kër gi xale yi àndandoog seen baay àndandoog seen yaay ñëw ci biir ëtt bi ñëw ci biir saal bi ànd àndandoog ñol màkka soxla si nawoon na ko nañ gëm yàlla ñaari doomi njol màkka ko gën tey gis nga gëm yàlla li muy wane gëm yàlla li muy adhéré gëm yàlla li muy wane kon jigéen ñi yàlla yàlla yàggal seen taxawaat ci tabarkeen ci yàlla Muhammad soxna Fane Ndiaye kàddu yi ñu waxoon ëpp na loolu waaye nag yéeg garab ku ca yaakaari xob alaaji Malick sëb jël weesugul yal na yàlla boole ñu defal tawfiq di ku baax ngàbbal na ma kii ca minnam leer na Babacar Mële tàggal ma yeneen tubi bàkkal ma Seydi Hadji Malick ba waa dëkk ba yépp kontaan kon bu nu ñëwee ba fii soxna na Ndiaye jël la ñu kàddu daan ci sawar pour jël ko daan la ndokkeel gërëm la sant la ñaan yàlla yàggal sa taxawaay soxna na Ndiaye yal na yàlla guddal soo fan ci barkeen ci Yàlla Muhammad wa ma zalika allah bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci loolu xam loolu nekkit ci loolu mu yërëm ma ci duni ma fooy dem duni ma foo toog du ma looy def jàppale ma nag sant naa la loolu juuf yàlla na la yàlla defal jàmm ak boroom kër yi fi nekk yépp su ma limeet damay juum ndax dañuy ne ci ay kër di def lu baax nekk fa di xatal te benn boroom kër duñu fi jege di santit sama ñi may àndal di waaxaar yàlla maa ngi leen di sant bu baax a baax jiital ko ci présidente bi mu teg ko ci loxo ñépp képp ku bokk ci mbootaay yépp di ci teg mbootaay waa Kër ma Masamba Gueye sopp na bi mbootaay bu fi nekk bu umu ja waa jàmm gën marraine yi ñépp maa ngi leen di nuyu di leen sant Adja Sira ñun kontaan nañ ndax su la neexoon nga nekk poids lourd yaag Adja Soda ndax da ngeen téye ñun lu ñuy wër macha allah di sant imam Miniru di sant El malik Malick Maodo bu Kër Massamba Gueye di suñu tiitar di suñu soppe di suñu lépp peccum liir nag dañ bu neexee ñu ne nday jaatee ca mbagg ya di sant suñu góor suñu càmmiñ alaaji sëriñ Ndiaye di sant commune Fandène bi yëpp bàyyiwuñu kenn ndax ñun lu ñu man rek ren ba déwén alaaji Ndiaye loxo mu ngi ci biir di ñu jàppale ci biir di ñu jàppale ci biti bañ na ko ba jàppale bi sax danaan ne leen seeni borom kër nañ ma baal àq ndax dama leen di téye fii di leen téye feneen kon sant naa ñëpp di ñaanal suñu mbokku tabaara jóob mënuñoo wax ba pare te demuñu ci moom heure bii daaw fu ma teg sama tànk maa ngi moom la woon yàlla def tey mu jiitu di sant way juram nee na fay ndax tabaara mënoon naa jiitu mu am fu ñu teg wala mu daw ñu wala mu am nu ñu xoole waaye def na yëfu julli dëkk sa doom ji fi mu la féete woon fay yàlla na lu fa suñu borom féete xaaj ma niiru la ma waxoon daaw rek laay waxaat ren say waajur lay gën a ñaanal ñoom ñi leen meññ yar leen ci diine ak lislaam ngeen mujjee ci ñun nag sant nañ ñëpp ñu kenn su ma gënee lim damay juum te temps bi dafa gàtt lool bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ñaanal yàlla képp ku ronu ci tànt bii loo man ren déwén yàlla nga man lu ko ëpp mbootaay yu nekk ci quartier bi lépp lu ñu yoot ci barki Seydina Mouhamed may doom ji set wecc yéenewu ma kenn lu bon yal na ñu yàlla defal jàmm defal ñu ko sàng ñu sutura fa ñu bëgg a egg fépp yal nañ fa yàlla eggale ndax kenn ku yëngatu rekk sa moroom jub kon ñun ñoo bokk njaboot di sant nag koo xamante ni alaaji Malick Maodo di sant seen Cheikh kan di sant sëñ Mansour di sant Abou di gën a ñaanal suñu mbokk mi daan àndal muy Ibou Ibrahima Mané mm-hmm. ndax saa su ne buy wax rek ni ma àllaaxira maa jiitu nga topp sama ginnaaw mm-hmm. ndax yow mu murit nga lépp ci kaf la woon ak foo ak ree na ko yàlla yërëm mm-hmm. yërëm way dawlu yëpp ka jaali maa nga dañ nekkee def ko ba këram mu woo ma ne ma dama am jotaay boo xam ni sama wóllëre moom lañ ko tuddee ma war a ànd ak moom dem ca te suma sa ñu ànd ca mooy sama teewaay faf ma fekk fi sama doom baay xaaj mudiru kii sama mag la Abdullahi ñoo bokk ndey ak baay muy suñu kilifa Baye Maodo Gueye gi nii toog tabarakallahu di kilifa ak jotaay bi seet Seydil Xaaji Malick Alxaaji Moulay Jéy mi ngi nii toog ñu ngi lay nuyu di la ziyaar عبد العزيز أعرني القلب أوصيك وصية تشفي عنك كل ما فيك إذا الزمان الذي عم الفساد به ولا تكن أن تعادي من يعاديك ما عندك تكزي من وبالصديق وبالفاروق ثم بذن نورين ثم أبي ستين يلا بمالك صلى إيسا في ذي المزايا سافعي يا أبي طريفة الأحمد المحمود الله باللوح والقلم المحفوظ ثم بعر شد العظيم رب الكسي وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح الله عبد العزيز أعني القلب أوصيك وصية تشفي أنت كل ما فيك ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci yéen ci turam ak santam di leen baalu te di leen balaq di ñaan yàlla na bur yàlla boole ñu jéggal bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, bi nag ñu ngi ciy jiital chef de quartier bi ndax it moom moo fi représenté l'autorité administrative xëy na tey bu ko neexul woon jataay bi buñ bëggee tànn fii mën naa bañ a nekk kon ñu koy nuyu bu baax di ko jox cëram di ko jox wàccuwaay di nuyu imaam yi fi ne di leen jox seen wàccuwaay ci biir imaam yooyu ñu sama baay Maodo ñu ngi koy nuyu bu baax di di leen ñaanal yàlla man fu ñu ma joxee kàddu damay wax ni nañ ñaanal imaam yi ndax ñooy jiitu ci nit ñi ñooy mujj ci nit ñi ku am doom wax ni wool ma imaam ku am néew ni wool ma imaam kon loolu lii ci nit ñi dañ leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen dëgëral gën leen kàttanal e eh, bu loolu jàllee it maa ngi joxe nuyoo monsieur ndax moom ci wàllu boppam moo waroon a ñëw waaye tey xam ku nekk xam nga ni dëkk bi xat na ndax suñu président di suñu candidat monsieur Amadou Ba dafa war a ñëw cees te monsieur Augustin Tine nekk kilifa gi nga xamante ni moom la jiital ci département bu Thiès mu war a dem taxawe loolu waaye yàlla seede na ne bu du woon événement boobu noonu am kon tey fii kenn du fi xaj waaye mi terewul mu def délégation yónni leen ni leen dem leen bu ngeen demee ngeen teewal ma ci loolu noonu délégation boobu doon nag ki ko jiite muy Serigne Abdou Niang mu ngi nii toog di suñu kilifa di suñu mag di suñu lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla ko yàlla eh, ki topp ci délégation bi muy El Hadj Serigne mu ngi nii di seen góor di seen xarit di seen lépp foofu nag ay mbokkam moo nekk nii nit ku bëgg ay dëkkam moo nekk nii nit ku jàppale fa mu waa dëkk moo nekk nii ndax dañuy wax ni bu ñu nee nit baax na na ko ay mbokkam wax ñun ñoo dëkk ñun ñoo dëkk mbokk yee di wax yaa ngi ne toog yaay ndooy ne maire mii toog mook suma yaay xaritu benn bakkan la kon ngeen xam ne alaaji mbaax gi nga xamante ni moom la indi fii kër ceem dëkke mu dëkk kër ceem fa la ko njëkk di def lu baax di wax lu baax ci sutura nit ku am sutura nekk nii yal na la yàlla sutura bi jaay Mohamed eh, alaaji damay profité ci jataay bi di la dénk kenn di la dénk mbooloo mi yëpp waale di la dénk kenn koo xam ne sama nit la suma xarit la suma lépp la muy góor ak góor a Kairé Mbaye mi xam naa xam nga ko waaye ni ngeen war a jaxasoo jaxasoowu leen noonu waaye dénk naa la ko ci kanamu mbooloo mi incha allah bu soobee yàlla e su loolu weesoo it ñu ngi ànd ak suñu baay baaba Diop bëgg fàllu moom boo nee baay baaba bëgg fàllu rek xol bi sedd na guy waaw ñu mu nga jógee ba zone nord fi ñuy wax zone nord foofu la jóge man mii di wax ak yéen man maa ngi tudd Abdou Aziz ñi ngi dëkk kër ceeb Sawaare fonk bis bi moo tax ma dagg suma yitte yëpp ñëw ndax Dakar jóge tey ku nekk xam na jour ouvrable la nit ñi dañuy liggéey mais dama xëy ba mu naaj ma dagg yitte ñëw ndax bis bi ndax fonk bis bi et eh, ci biir délégation bi am na ku ñuy wax Maguette saar mu ngi nële toog dëkk Daaru Touré mu ngi nële ñëpp ci délégation Augustin lañ bokk waaye dama bëgg a taxaw fii ci màgget dama bëgg imaam yi fi nekk sëriñ Muniru borom xam-xam yi fi nekk yépp ñu ñaanal ko bu baax a baax màgget Sarr mel ndax kilifa gi ren dafa def lu rëy muy Augustin Tine da ko may billet Màkka barki démb mu ngi nii toog moom Maguette Sarr dëkk Daaru Touré ngeen ñaanal ko yal na ko loolu jig yal na nekk barke ci moom bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa délégation bi ëpp na loolu waaye temps bi moo xaw a xat waaye ma ñëw ci waa gëm yàlla waa gëm yàlla yéen xam ngeen seen diggante ak Augustin Tine ndax Augustin bi mu ñëwee daf leen a booleeg ji lépp lu ngeen bëgg ngeen jaarale ko ci ji alaaji ji eggee ko ko lu ko alaaji eggee def na ci la mu mën xam naa daanu dajul suuf deful lépp waaye lépp loo xamante ni seen soxla la yéen xam ngeen ni def na ca la mu man seen xarit la seen wëllël la seen bis bi nag tey bu sañoon lépp loo xamante ni am na ci bis bii moom moo koy def lépp lu ñu war def ci bis bii moom moom moo koy def moom Augustin Tine waaye comme ni ma ko waxee léegi léegi jamono ji xat na weeru koor la ñu nekk mbir yi xat na waaye moom daal kontaan na ci yéen bég na ci yéen oustaz Mounirou ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay bi yal na yàlla yokk xam-xam bi yokk wér gi yokk kattan geeg man gi bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barki weeru koor gi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def moom na ci ñëpp bég na ci jataay bi waaye bég na ci waa Kër Masamba Gueye tamit soxna Aysatu enveloppe bi Augustin moo ñu ko jox pour ñu jox leen lay taawal taawal des na enveloppe bii nag man sama enveloppe la sama enveloppe bu bopp la mu ngi noonu e ma dellu santaat leen nag bu baax a baax ndax da ngeen a def délégation ñëw suma kër seet si ma waaye bi ñu fa ñëwee fekk ñu ma fa soxna si lañ fa fekk soxna si teeru leen tatagal leen waaye lañ ko wax yëpp après wax nañ ma ko soxna si tamit ànd naa ak moom mu nga ne la toog waaw moom ñëw na ah suma jawaru mat tamit ñëw na muy Kumba ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi kon daal eh, lii Aysata Abdou Aziz moom moo leen ko jox kon daal kontaan nañu bég nañu Augustin bég na mu ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp nguur a jërëjëf yow suma xarit nga loolu yàgg na loolu du tey lu yàgg yàgg yàgg la suma xarit nga suma lépp nga macha allah jërëjëf yàlla yàlla gën a wéral baat bi bi jaay Mambet kontaan nañ lool. kon dal mu gudd mu gatt moy ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waye ñu ngi ñaan yalla rek yalla la yalla fay kërëb bi ñu ñëwé soxna si teeru bu rafet lañu teeru ci su lépp rafet yàlla yàlla dolli sutura yi kon sëriñ Muniru nee na alxaaji Seydou Ndaw muy boroom këru Adja Malado Sey mu baax mii nee mu ngi ci tant bi di ku baax di wëllëre nee na alxaaji Seydou day naqatu nee waaye nag seen na la nana na ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal aja malaado di ko baax Muniru di ko jëw ci jëw bu rafet ñu yewi ay dafal ñu carte bi moñ ko jox ne joxal mako wa gëm yalla joxal mako soxna nday khadim ñang di sama sœur joxal mako ko Adja Fat Fan Ndiaye Diop ak wa gëm yalla yëpp wax leen ne sama asaka yéene la poster ba lañu gis ginnaaw mooy établissement Serigne kër Sy moom moo ko moom macha allah nekk fii ci sud stade de Lat moom yaa ay da képp ko soxla fekk mu samp liggéey boobu ñu ànd ko ak moom ànd ko ak waa Kër Masamba Gueye Pël ba jumaa ji mel nii mu mel ki ko def nag du ko wax waaye ñiñ ko defal ak ñi ko fekke dañ koy wax sëriñ mu Mounirou mënoon na woote liggéey ci daaraam wala bu woote liggéey ci biir këram waaye defu ko daane kaay leen ma tabax daara ji jàngal leen ma ànd ak yéen tamit ñu tabaxaat jumaa ji jaamu yàlla kon yàlla na yàlla guddal fanam dooloo tax Baye Assane ba yóbbante ay kàddu jëm ci moom yëkkate ay kàddu tamit gërëm jigéenu koñ bi yëpp ndax jumaa ji bis bu ne ba koor amee ba tey ndogu fii lay jóge ci ñoom di dem fii ci jumaa ji di dogal jaami yàlla yi kon ñoom waa jumaa ji ñu ngi sant jigéen ñi ak waa bismillah mu ngi tàkk bismillah جزاه الله جزاه كنا بدريا من تبي والله سمحت قوم ما جزاه